foo mu jeex wax nañu tamit ni xaw ma lan ay mystique ak lu ne man de ku ma xam-xamee moom mystique ki wóolul boppam mooy mystique ndax bañ duggee ci bureau ba si suuf yépp ndox la woon avocat yi eh bu jàll lii saafaral ñaa ne ko waa mais doyen ndox mi ni mu demee mu ne non est-ce que ci toiture bi la jógee toiture bi de moo gënoon a sec fii est-ce que ci toiture bi la jógee greffier bi ne ah non non clim bi la clim bi kenn taalu ko fu ndox di jógee gars yi ne noonu nañu xaar ba ñu fobeere man ma ndox jaar ci kaw ndox li dem toog jàpp sama ñàmbur ndax man Macky Sall su dee xërëm rek la yaakaar du musa am dara ci man te teguma ko fenn du dul gëm yàlla wóoru ko ak nit ñu baax ñu nekk ci réew mi di ma ñaanal te kenn xamul nu mu toll man yooyu jaaxaluma ma nga bàndaas loxo bi fii ba fii xam naa dañ ko ne bul nuyu gars yi loolu day wane manque de confiance te juge bu manqué confiance rek def pression ci kawam day yomb juge bu ragal def pression ci kawam day yàgg moo tax wax naa ko ko nee naa ko pression yi ñu lay teg yépp xam naa ko Antoine Diome mi ngay jàkkool chaque jour ñu lay wax yéeg nañ ko menaces yeeg proposition yeeg yi nañ yéeg nañ ko parce que ku mun a xam documents yi ñu am xam nga ni réew mi jaaxaluñu ma ne ko mais na nga jël sa responsabilité parce que réew mi du jeex de fii la nekk loolu moom maa ko ko wax te je l'assume kon lii moo xew démb amul leneen te wax nañ koy fàttaliku naa fàttali fàttali naa ko nag ne ko man j'ai rien contre lui ah. te dafa di juge boo xam ne ñu ko xamoon démb ak barki démb nee nañu ku jub la woon ku dëddu woon la démb ak barki démb laa wax ndax gis nañ fi lu nekk te dossier bi du dossier du n'importe quel dossier ndax makki Sall bakkanam la ci teg nee naa ko xam naa li ñu la sant li ñu sant mooy même su dee dossier bi amoo ci dara fexeel rek ba renvoyer en procès mu doon un procès moral ndaw si ñëw taxaw naan fii la ma def lii fële la ma def lii nangam nangam ma ne ko loolu lañ la sant te loolu du sa liggéey yow xam nga ni loolu du sa liggéey ma ne ko tey aw ma dara contre toi waaye nag dossier bi balaa ñu la koy jox sax février 2021 bi loo dossier bi ne kët na jon nga publier woon sa page Facebook benn article boo xam ne dañ ma doon saaga ci article est-ce que kooku jaadu na man ma ma wóolu ko koo xam ne joxaguñ koon dossier bi xamuloon sax ni nañ ko mus a jox dossier bi mu publier ci page Facebook am benn article benn waaye Macky Sall bu nekk France bu ma doon saaga man ak bu ma condamné ci dossier bi ñu teg ci ay neuf mois ñu woo ko moom jox ko dossier bi est-ce que loolu war na dal suñu xel ñu ci Sénégal la ñu ne. ma ne ko sa digganteeg ñoom xam naa ko ndax xaritu Aïssata Tall Sall ba tuddee ko doom Aïssata Tall Sall moom bi affaire bi amee moo moo fi génne woon force spéciale force occulte moom ay Tall Sall ñoom ñaar du ñu du ñu réeroo xaritu Abdoulaye Daouda Diallo la bugguma dugg ci ay affaire ku bandum sax waaye li xew yépp xam nañ ko ma ko mënuñu laa wóolu bis boo defee li nga war a def nag dinañ xam ndax mën nañ laa wóolu wala mënuñu laa wóolu lii moo xew démb ci bureau des doyens des juges amul leneen tegal nañ ko lii génne nañu lële ay feni neen ñetti question yi daal la ma waa laaj raxasu ci pare na ci affaire ba moo tax ñu ne ko dossier bi nag da nga koy continuer bokk na ci li nga war a def il faut nga déglu général Moussa Fall instruction day mat on instruit à charge et à décharge faaw nga déglu général Moussa Fall faaw nga déglu commandant Abdou Mbeng faaw nga déglu ki ñuy wax MC ndax dafa taxaw